sëriñ yëpp nee nañ instant ñu sëriñ yëpp ngi nga ne sëriñ yëpp nee ñu ngi dem ci côté ak ay mbay guy gii ñu ngi naan day daan force xalaatuñ yàlla xalaatuñ dara. <laughs> yow fi mu ne nii xam loo bëgg a def da ngeen bëgg a jël affaire yi di nu jaxase ak yàlla yàlla gëmul ne ku koy nax xam na kuy wax dëgg xam na. ngay jël naan sëriñ yëpp nee nañu li li nga wax yëpp maa ngi koy dégg dama ne Balla Gaye Tapha Tine da koy duma daal force ñun nag moom ñun nag moom loolu xamuñ ci dara moom mooy. mais Boucher Boucher siggil xool ma Boucher siggil xool ma Boucher xool hmm. ban problème nga am lan la lan la. Boucher da ngay xam ne nag dafa ragal dee te combat bii moom bakkanam xaj na ci. ak ah. sëriñ Touba Mbacke bakkanam xaj na ci. billahi ah. wallahi taala billahi. booy boo waaj man kañ du ma waaj ndax du ma fekk. laa lay wax. lu may waaj. <laughs> Ali Kumba Naar. ñaari combat la yow de combat bi boo ci duggee barki Serigne Touba Mbacke di nga nga bëgg a dox mu no non fekkuma fi man toog combat bi nee naa le vingt et un daf may fekk avec le vingt et un ak le vingt neuf ci yem bu euh, mbay guy gi. Boucher lamb yëpp fi la ko fekk mais lan la Boucher di nëbb ci combat mbay guy gi. mais Balla Gaye kam yu mel nii la daan jam de mais léegi day waaw léegi day léttu gaynde guy léttu la <laughs> man ngaa gis gaynde guy léttu jërëjëf jërëjëf buuse nañ la ko buuse jégal nañ la ko jërëjëf jërëjëf munoo wax man dinaa uti ko mën a wax ci Balla Gaye doo ci àdduna de <laughs> mais mbéy guy gi nag sonal nga buuse ah sonal nga ko ah buuse Boucher xam na bu baax Boucher du wax. nga ne combat bi <laughs> Boucher bakkanam sax xaj na ci. barke Serigne Saali Mbacke bu ñu waxee bakkanam sax xaj na ci Boucher xamuñu ñun ay bawal bawal lañ ñun kenn duñu ku dóor aal ñu yat wi. mais nag fan yi war ngaa jël combat nag. Ah, man de pare naa mbër yi moom ku ne boo toogee sa ne xool nooy dem jël ko sa affaire la mais man moom maa ngi ak mais kan nga yaakaar ne tey ji ah waa lii la teem ci xale waaw lu leer nañ xeeru géej lépp a gi fi ñàpp booy bul bindi Zarko kii Zarko daa juum rek waay ki na na wax nee ko na fexe wuti kër am li ma am fexe doon mbay guy gi ñuy commentaire ci yow moo gën muy commentaire ci man man xaw ma la yëguma ne yaa ngi dund fi ne nii moom mais jégal naa la loo wax jégal naa la mais mbay guy gi waaw mbay gi gis sa nag ñu waxtaan nag maa ndax mën ngaa daan Jackson. kuy Jackson. Jackson bu géejawaay moom rek la décédé. non kooku du ma wax moom. ah lu tax. non dara amuma leen lu may moom. Jackson wala xeex bee la arrangé wul. <laughs> Padam. waaw. dama ne la. waaw arène nationale bi. waaw. ku gàttu fan doo fi gis sama defet incha allah. ko hmm? soo fan gàtt doo gis sama defet incha allah rabbi wax laa lay wax nag wax non dama laa dégg waaw ku ñime dañ laa déey te ñun pare nañ de pare nañ ci lépp non ci sa carrière tuuti mbéy gi dama gis da nga teg la ay victoire war am problème dara am problème ah mais bu la ragalee nag ngay jël mbër yu dooni champion di leen daan kay gars yi dañ lay ragal dañuy xam ne nag kii dofut ku foog ne dof la wala bopp bi am ndoxo ne yaa nax sa bopp lool day am di jàpp nit ngaaka te fekk na borooma la gën a muus hmm? sama bopp bii dafa fees del xam nga fees waaw fees man ñi may nekkal sax ku sa bopp feesut mënoo nekk ak ñoom ñoom Papa Dieng ak ñoom Aziz Ndiaye koomut mënoo ne ñoom hmm, hmm, ñoo mais yaa Jackson daal bu fekkoon Jackson pare na pare nga tey bu ko promoteur yi doxoon man lu loo amateur yi bëgg-bëgg naa mais ko awma leen lu may wax ci moom waaw hmm? oh, lu may wax moom. Mbaye Guèye Jackson xeex bi muy agressé gars yi di dox seen kaw bu at bi si loolu seen diggante dina la ko def. Kuus Kondorong mënta dóor kenn. kan mooy Kuus Kondorong. non damaa wax sama wax sànni rek mas ngaa gis tungu ni kuy dóor kenn. ah mais Jackson ñu bëri danañ la dóor. waaw mais ñooñoo ñàkk fula rek ba mu leen di dóor. Mbaye Guèye bu ñu ñëwoon sa combat Jackson taxaw na ban Mbaye Guèye lañ nar a gis. <laughs> non combat yooyu loolu du ci wax param man ku fi gaay yi bàyyi nañ ma jox ma jël ko japp ko daan man dama ne la liñ ma doon nax ci lamb nax nañ mako jeexna wala gamo li ma yow non man ke daa leeru ci man liñ ma doon nax nax nañ mako say yoral say beut di xol lu leer la lay wax <laughs> ngali babu ko manar yalla baax gaay jàppale lañu comparanza. jàppoon ne gars yi ñi la jot ya ya ya a daan ci làmb dañ la nax. ñi. yow nax. nax xel Zarko moom dalaa nax moom Zarko moom dalaa nax man nax xam nga ne man bu may bëreeg Zarko at bi soble ma taxaw fi ma taxaw di léewtoo xam nga ne loolu mooy nax. man pir man avancé rek laa xam day daw rek. man kay soufflé mu jeex fi mu ne nii kay soufflé mu jeex jooy mbaaree rek. jooy mbaaree. te Zarko Zarko Oh, Zarko bu mel ni ci dëkk bi yow la de. waaw Zarko ah macha allah yàlla na ko ndam li jig de. non da ko jig moko ko daal. da koo jig da ko jig da ko jig. yàlla na yàlla na ko ndam li jig. carrière am xam lim ci bëgg yalla defal ko ko. mais dal <laughs> Ali ba ale bo gis am na retour. mais ban mbër mo meuna freiner mbay guy gi way ban mbër. amut amu fi. mbay guy gi bal ngay wax. àdduna amu fi dafay amul rek kanama feree ne ah, man ma am caatu Daawda Fall am Jackson am daanaan yëpp xale yëpp ñoom Youssou Ndour man géejawaay laa dëkk de dëgg la sama ngi ci ginnaaw léegi mu pare <laughs> fi laa dëkk de titre fon titre foncé laa yor padam ndakaaru bàyyi kenn moomu ndakaaru bàyyi kenn moomu ndakaaru njaay mais nak man bëgg na gis nga jël combat bu metti nak ndax gaay dañ ne combat yi ngay jël adversaire yàlla lepp doole. <laughs> bay ma barkelu ci Fawzeyni. Fawzeyni laa Fawzeyni laa bëgg a barkeelu ni bilaay bu ko tafaa daane bul ma waaye saal ma barkelu ci moom. <laughs> gaynde gu magat la. Fawzeyni. ah mbéy gu gi nag mbéy gu gi nak mbay gu gi nag baal mu sedd nak tamit. Aziz nee naa ko bul yàq xaalis ay trente millions yi ngay jël Elisab si di yóbbu ci gaynde gu màggat bu ko def. gu màggat bul yàq sa xaalis. ah, ah man de mbay guy gi man xam naa ne xam naa ci leen de mbay guy gi. waaw. géej waay de xaw ma ko. waaw Papa Dieng li ngay def mooy lan parfum ci gémmiñ ah parfum bi <laughs> waaye bàyyi li ngay def waay <laughs> yaa ngi faraale géej waay de di ma parfum ci bët <laughs> yaa farfar ak sekare de ah mais mbay guy gi Jackson combat la de amateur yi bëgg nañ ko de dégg léegi gi Jackson moom la amateur yi bëgg. waxuma ko mais Sénégal gi moom lañ bëgg mais comme c'est-à-dire euh, ñoom bëgguñu. ñan bëgguñu. ñoom da nga leen toog di seetaan rek. non combat boo amateur yi dañoo bëgg diggante mbéy gi Jackson. moom la amateur yi bëgg. faaw ñoom ñaar ñu tàqale ko. non coono daa bari seen diggante nañ tàqali ko rek. coono bari ndax géejawaay il faut ñu am ku tëj gémmiñu mbéy guy gi. dégg ma. non géejawaay dañoo bëgg dañoo bëgg espoir bu ñëw tëj gémmiñu mbéy guy gi. yow nag maa bëgg a wax loo rek ay géej waay ku fi yeewoo ku mën a daan mbay guy gi jamono yi xanaa moom mu daan boppam géej waay amul espoir bu daan mbay guy gi ne ne ne na moom day mujjee xaar safaati daan Balla Gaye de mu ñëw mos ci Balla Gaye non non moom rakku Balla Gaye la moog Balla Gaye dañoo nekk waay dañoo bokk lu ñu mënul seddoo ah man de combat man man mbay gi ko wax deug yalla non mbay gui lambam dafa nar a metti. da nar a metti da bari adversaire. parce que ñim mu bon adversaire leg ñim bokal bokkal bari lol ba mu ëpp. <laughs> mais nag géejewaay. mais ku waroon naa géejewaay nag nak mo sa gën mais marle nag mbay gi waru ko war mais déggoo na ma la ne lu mu bok-bok ak nit man xam nga lu ma gëm man ma la ko wax fi kan moy papa ñaabu ndaw original. Mhm. du man waaw. bu ko làmb boole ak kenn du ko xam na ni jege na moo lool ñu fay ko xaalis bu ko jar. waaw moom ñaar comme comme ñaari combat yi passé day ñëw day jékkee-jékki ñu ko sa combat taxaw na. Mm-hmm. man xaay bi laa gëm. yow Fadam leer na ne ñaabu ndaw ak. Euh, ama neex Mor Kankang. waaw. gaa yi taxaw nañ fi ba sonn ma bañ. boobu Mor Kankang jour bi koy dox Mor Kankang yi sama kër daa génn ñaa dugg may leen du ngeen bëre. ca kanam ngeen di bëre mais xaalis bu bëri bu xaalis bëri du ngeen bëri. man loolu laa gëm. yoonu xale yi non sax ci non ci yoon sax mooy combat yi da leen a war a jaral ñu bëri combat yoo xam ne nii buñ paree dañuy dem ci digg terrain. waaw. loolu yoon. mais ñaa ci côté boobu lañ ko teg tey teg ko ci moom teg ko mbay gi gi teg ko keneen ak keneen xam nga làmb dafa metti mhm. man pour te dire di vrai ma wax la dëgg parce que Serigne Bamba damay toog ba mu yàgg ma ne man xale yi. dañoo war a bàyyi làmb ku ci bëggantey ma defal lépp làmb nga bàyyi làmb ji ndax man xale yi bu ñu amee làmb li ma ciy dugal ci xaalis ak li ma ciy daj a coono yi may jànkonteel mënu ma la wax ni mu toll comme la passé maa ngi koy wax sànq ki ma jël ci aéroport bi may jóge aéroport léegi nii euh, circulation bi am ma di ko expliqué euh, ma yor sama oto trois heures du matin man kese ma ànd ci àll man kese ma ànd mais mu dugal oto bi foo xam ne nii man ma na maa de ban lu yàgg nit du ko yëg ci combat Tapha Tine Eumeu Sène man kese ma ànd trois heures du matin trois heures du matin man kese ma ànd ma dugal sama oto foo xam ne nii oto bi mu duggee ci ndox moomu bu ma fa deen nit ñi dañ naan am na ku dee foofu nangam bu nit ñi toog ñaari fan door ba fa fekk mais alhamdulilah bi bu fekkee na ma yor bu baax ma am fi boole ci ma foncé ma foncé affaire bi gën a metti ma foncé mais bi ma génnee foofu ñi ma dajal dañ mën a yow foo jaar ci àdduna noo mën a def ba jaar fii mais sant yàlla rek te doo ko taxaw di wax. lolo man lam combat ba combat ba. ah mais loolu dafa doy waar. combat bi ñaata million sama wéer huit bu bu bi ñaata million ñaata laa ko jëndee mais da ngay dem ci làmb ba toll foo xam ne yow dootoo xam nooy def ak fan ngay taxaw ak lan ngay def sooy ma dégg gars dox nii naan làmb gàllaaj làmb kii mais c'est-à-dire sëriñ bu ñaan ci ku ne da ngay wax la neex dajeeg sëriñ bi mën a ñaan gàllaaj dafa am ca làmb làmb suñu baaxu maam ñu la fekk ñu sotte ko ko xëppoo ko suuroo ko naana ko def yenn yi loolu kenn mënu koo bàyyi ci làmb ndax man li tax ma xam ne jéey système bii système bii ngay doxee nii dafa am solo mooy combat Balla Gaye numéro deux ndax combat bi am na niveau mu tolloon boo xam ne nii ñu bari ñu jege woon su doon déglu du jël combat bi te benn liñ biñ fay pour mu liggéey ko ci réew mi nii problème la kon tey jii li ni ko jëlloo avance bi am na solo trop ci carrière am ndax tamit mbër day toll foo xam ne daa a am moyen. ma ne mbër a am moyen. saa waay euh, yàlla na ko yàlla yërëm te yéexiñu. Mm-hmm. daf daan wax ne ki la bañ la combat million te du yëkkati cent mille franc may la xoolaatal. Tafa mënuñu ko fay cent million man du ma yëkkati dix million di ko may Tafa. liggéey du ma ko ko may. mais ñu fay ko yenn xaalis yo xamni ne montant la bo xamni ne nii moom papaam yaayam ay domam ay rakam ay mbokam dañ ci gis sen bop ma diko ko xagn duma ko def pour lan. Mhm. est-ce que loolu nit la te ñom ñaar làmba leen boole. sox eh, loolu eh, yëfu soxor la sax. ñom ñaar lamba len bolé man objectif bima bëggal ci lamb ji. li ma lan tafaatin yalla dogal ne amna ko dama bëgg ñu fay ko xaalis bari mm. moo taxoon may taxaw di wax bëgguma sax wax ko waxal ko fii fexe nga ba wax loma ma bëgguma woon sax wax ko fii ndax boobu ba léegi waxaguma ko xam nga boobu ba léegi li ma ci war wax waxaguma ko mais mhm. lima ma na a bëgg ak li ma rek ñu fay tabati lay moromam di ñam ci lam mu ñam mu ñam ko mais tafatin moy roi de arènes lan moy roi de arènes dan na ñaar dan na ñaar roi de arènes dan na mëseen dan na bomber ya xey ta mu lay lu fi desati dan ñet ñu dan Balla de non non xolal <laughs> non mais nag Dieye combat bi nag il faut nga ñëw ci tuuti ndax mu cee ñëw tuuti jox ma jox ma Dieye Dieye bu ma combat war ñëw tuuti mooy combat bi boo xam ne nii jii da nga am loo réussir eh mu joxal ma Dieye tuuti yow dawaay daw na de dawaay daw na cedd la combat ah combat bi daal doy na waar combat bi daal di nga gis ponkal yu daje moom ci àll waaw ku ne feree ne mais nag bokk na ay kër ngeen bokk nag am nga kër yoo xam ne ko bokk waaw di dama ne la di nga gis ñaari. waaw non mbay gi nag loolu loolu nag war nañ ci waxtaan tuuti. Balla Gaye ak Tapha am na ay kër yu bok boo demee kër Lirou Diane. boo demee kër Lirou Diane. waaw ah, da nga fekk Dieye. boo demee kër Lirou Diane da nga fay fekk Balla Gaye numéro 2. waaw. te Dieye mi ne foofu mooy magu Balla Gaye numéro 2 te Dieye mi mooy magu Balla Gaye. dëgg la. ah kon mi ngi noonu bàyyi bul kii Omar Sakho ku baax la. waaye bu ñee làmb bu ñee làmb ji dese juróomi fan ah? non ñëpp xam nañ ne Balla Gaye sa la waaye bu làmb ji juróomi fan nga jaar nii Aziz jaar nii <laughs> non Aziz nee leen dootul wàcc ci làmb ci suuf non du wàcc ci làmb waaye dina yónnee comme ni ngay yónnee <laughs> ah <laughs> nga yónnee ah waaw ah du mën a ñàkk ah, ba booba kon kon kon kon dañ koy joxante rendez-vous boo booba ñu xool bu mais mais xam nga gaa nag nam nañ gaa yi nag nam nañ tergal bi gaa yi nam bi soor bi <laughs> sooru noir blanc bi ak musóor gi anamu. <laughs> mais am na bu ma am na bu ma buuse indil. ah. am na bu ma buuse indil. déet waay. <laughs> bu ma yoroon bi ma yoroon Mali. bi mu buuse soxla Mali bi mu Mali. waaw. boobu laa ko waxoon nag na ma ko indil. ah mais nag mais nag combat bi nag combat bi dafa am daal. waaw. farut ak Balla Gaye de. non yéen ñëpp a far nag ah yéen ñëpp benn ngeen. <laughs> combat bi daal dama ne la. waaw li nga gis ñaari ponkal dawal ba daje ci àll. non mais nag day na bokk ay kër nag bokk ngeen ay kër. ay kër. waaw kër ga kër kër kër kër kër ga ngeen di mujjee dem contre Tapha Tine contre contre Eumeu Sène kër gu mujj gi. Ah, uh-huh. kër ngeen mujjee dem. kër googu kër googu sax mën nañ koo bàyyi ak moom. déedéet. foofu mun leen ko baax. baax fas ser yee jugee fas ser yi ngeen di teg ci coin yi fi muy jugee yi ànd ak yi kër googu yéen a ko de. <laughs> gàllaaj yëpp reefan lay jógee. <laughs> nga ne gàllaaj eh bu ma waxloo de nga naa ma gàllaaj yëpp lay jógee. ñun ñun Gét Ardo lañ bokk Gét Ardo. Gét Ardo da ngeen koo <laughs> ah, bu bees ba nga ne Gét Ardo am na borom. non da ngeen koo de. am na lu ma de. bu boba ngi ne get ardo amna borom hein get ardo dafa am borom man nga ñew leneen am ñu cofal la mais ay bo duggé ci dëkk bi nek ci yoonu Tiwaawan nag nu ngeen koy def dañ koy bokkat fofu wala dëkk bi ne ci yoonu Tiwaawan waaw nañu xol rek nak nag Tiwaawan de moy bawal boy dem Tiwaawan touba tour ngay jaar ah ay waay non li ma ci borom ra bari mais nak mais nak mais nak mais nag ndox mi na xanaa deen ko il il il ba nag il ba du <laughs> ah, moom sax départ rek. ah séeréer ndox mi nag bokk. moom séeréer yi léegi. non eh, xam ne eh, mer. Eh, yi mer woon meroon ca Yékini ba léegi. dé waaye ngeen la. séeréer yi mer woon meroon ca combat Yékini ba. Hmm. Hmm. moom la nu bëgg a fayeku ba léegi amagun fu nu leen ko fayekul ci combat bi ngay xam ne séeréer yi. séeréer a gëm séeréer du jënd dara mbokkam mais séeréer ñu nekk ci ndox mi ñu nekk ci ndox mi mais Fadam waaw soxla naa la bu subaa waaw ah man tey laay door a ñëw waaw bu subaa damaa bëgg a dem joxe boo jóg avance ah jéy baa ma coupé live bi ndax man xam naa ne bu subaa damaa dem joxe boo jóg avance bu subaa damaa bëgg a dem joxi Boy Diop avance bu subaa damaa bëgg dem joxi euh, euh, Siteu bu Ngor avance dégg nga. bu subaa damaa bëgg a dem joxi Sarko avance. ñeme naa combat bu ne ci àdduna waaye coowal Fallou Ndiaye laa seetlu na. déggum déggoo ma nga ne. non carte gi ni mu riiree xam nga ne ma ma maa fi nekkul rek. non non taay coow li daa na ci réew mi bari bari maa fi nekkoon mais ñëw naa <laughs> xam nga man suuf laay def. waaw baax na waaw baax na bu fekkee attan nga coow Fallou Ndiaye baax na ko ne. dama ne bu fekkee attan nga coowal Fallou Ndiaye baax na mais nag Guèye. Oh. Guèye fan ci entraînement yi ci Côte d'Ivoire fan la toll. non mu ngi mu ngi si mu ngi liggéey nag vraiment mu ngi liggéey mu ngi ci jàmm mu ngi ci vraiment mu ngi ci mu ngi santé euh, mu ngi liggéey daal li mu war a liggéey vraiment. mais lan mooy base bu préparation bi Tapha Tine daa dem pour yokk doole wala ah? daa dem pour oh, pour xeex beeg yooyu nan la ci gën a nan la ci toll nan la ci toll. non xam nga am nga lu ci ne nag daa am looy xaar rek da nga koy bàyyi ay nit def ci ñoom li ñu war a def ñun bu ñëwee ñun fii la ñuy rectifier li ñu war a rectifier. bëri mbër mu la daanoon ndax non déggoo ma de mane ne Tafa bu ñëwee fii la ñuy depuis contre Yékini Senior ba léegi depuis ñu jëlloo ko combat Yékini Senior ba léegi dafa am initiative bu ñu jël ci moom. initiative bobu sa yu joté rek ñu def ko. mais ndax bëreeg mbër mu la daanoon bëreeg mbër mu la daanoon. waaw. nokoy préparer préparé bëreeg mbër mu la daanoon. ah lolu moy gëna yomb bëreeg mbër mu la daanoon mooy gën a bëreeg moom mooy yomb koku da la xam. tay yoo xam mais dama gis né carrière Balla Gaye 2 saa yi demee INSEP de Paris rek bu ñëw dé gagné. dégg ma. Balla Gaye combat yi dem initiative yëpp ba mu dafa gagné. yi mu dem. initiative si yëpp bi mu ñëwee dafa gagné. bi mu ñëwee dafa gagné mais kan la doon dajal ah daje na fekk Modou Lo le roi bi ngeen bëgg a ak kan la fi INSEP ak kan des na de na kan la ko wax ak kan ah boobu kese la ak kan bii mois daje na fekk Modou waaw ak kan waaw daje na fekk Modou Lo na ak ah Tapha Tine daa INSEP non Balla Gaye laa wax ma combat yi mu INSEP ko yoon da ngay déglu da ah? ma wax la. Tapha bi keeku. non ñaari yoon la ñaari yoon. waa déglu ma wax la li sant bi Tapha Tine keroog ba ñuy dugg ca làmb yi ñëpp gi teg seen bët. yaa ngi gis bantamba ba gars yi di daanoo. non lan nga bëgg wax da ngaa wax ne Balla Gaye dafa rayoon Tapha Tine ci mystique. mais loolu kenn werante wu ko ci ci ci lii la ko rayoon ci xel. ak ndax loolu mën naa maat. ak ak ko ah. ndax loolu mën na maat. déggu mooy ndax loolu mën na amaat. ndax loolu mën naa amaat. waaw jamono bii. waa ci mag bii ceddo yu màgg ñëpp. ah déedéet. loolu nga bëgg a dégg déedéet. ji jàpp nga ne la amoon mënta amaat. non la amoon nu muy amaatee. Balla dafa am lu ko yàlla may. Balla dafa am lu ko yàlla may. dafa am lu ko yàlla may moom Balla Gaye mm-hmm. fii ci Sénégal ku bëreeg Balla Gaye am xaalis ku bëreeg Balla Gaye am coow wala déggoo ma dégguma ku bëreeg Balla Gaye di nga am xaalis ku bëreeg Balla Gaye di nga am coow ku bëreeg Balla Gaye sa affaire dina baax ndax bëreeg Balla rek nam la Balla dafa mën làmb xam làmb te nangoo jëf ci làmb te nekkul mbër muy sonal promoteur nekk mbër moo xam ne nii mu mu mu mu mu mu baax mën a dimbali promoteur moom ak Modou Lo façon dimbali yi ñuy dimbali promoteur man moo gën a yokk tax ma gën a li sawar ci ñoom est-ce que mbaa xam nga ne Modou Lo mi ngay gis nii bari na ñu ko tëgg fii ci làmb Modou Lo dafa wàññiwaat xaalisam dolli ko feneen pour làmb jooju mën a sotti ma xamal la loolu Modou Lo teewee nañ fii mu jël douze millions cinq cent dugal ko ci làmb jënd ay billets encore ñaata millions pour làmb jooju mën a am làmb noppal promoteur dafa bokk ci làmb ñoom nañu bàyyi xel jàpp seen bopp yi ñu am lu ñu def ko seen bopp ñu xam ne promoteurs yi ñooy bailleurs yi sans promoteur làmb ji du dox ni mu war a doxe sans mbër tam lamb ji du dox ni mu war a doxe mais mbër yi dañuy toog di xaar promoteur ñooy dem uti xaalis kenn xamul dañuy jaay seen i conteneur wala dañuy jaay seen suuf seen kën wala dañuy jaay wala dañuy dem liggéey leneen ak leneen ak leneen ak leneen ak leneen ba ñëw dajale daal di ñëw tëgge ko tey làmb tey fi mu toll nii boo déggee ma lay tooñ ci Fallou Ndiaye sànq naan damay jox booy jóob ak diw avance mais vraiment dafa nekk loo xam ne ni man gisuma fi benn coow mal attendu rek ñàkk déggoo ci yéen la mais benn problème am fi gars yi ñoo koy garaawal di sie eh, di wax yii di wax lee di wax lii wala nangam mais gis nga nañu nangu ras inda ndaa war wërsëgu jaam yàlla bu dee Fallou tëgg combat boobu kenn mënta fee ba ko tëgg bu dee keneen a koy tëgg kenn mënta fee ba kooku du ko tëgg yàlla lu mu dogal ci loxo nit day am ma wan la benn anecdote Modou Lo bu njëkk ak Eumeu Sène ñaata dox. bari na. loxo kan la mujje Abdou Aziz Ndiaye ah. ñaata la lig ne ko laa loon na keneen ak keneen na Modou Lo ak Eumeu dama koo bëgg mais ba ko yàlla dogalee Aziz Ndiaye ku tëgg ah. bëre wuñ fi final euh, kalaaf bëre bëre bëre ba desul final ba final ba ku ko mujj bëre ku ko mujj tëgg. diggante sos ak laa dégg ku ko tëgg. lig ni ko tëgg noo. moo ko tëgg làmb noonu lay doxe làmb daf fawum xaalis la faw xëccoo am ci faw waxante am ci mais waxante lu mu metti metti nañu rafetal te xool fan lañu war a jaar. mais combat ku ci gën a yeew combat combat Balla Gaye Tapha Tine fan la tollu waa Bawol. déggu ma. ma ne combat Balla Gaye Tapha Tine fan la tollu waa Bawol. damaa bëgg Balla Gaye Tapha Tine bi. so beugé pour ñu waxtaan ci kessé loolu rek mo intérêt parce que yow fi tolli bëggol lu rek ma wax bëggol ma li ci nga man sen la sante duma ma joxe ba pro ci làmmiñ kenn mënu ko am ci man. dëgg la. bitélu ndox bi ma yor ni bitélu ndox bi ma yor ni waaw. suma ma tay tay tay jox ko tafatir ci kanam ñepp ñu tok nako nanal mu nan ko. Mhm. duma laaj lan mo ne ci bi su ma demee jox ko Balla Gaye du ko naan man loolu leer na ma du xam ah, xam nga li ma la kon nag mm-hmm. loolu du am fii sama kër gii ma toog tawaatin moo xam fauteuil yi ni mu mel moo xam liñ fiy toog ak ni mu mën a mel kon nag man loolu ragal fii te day xañu wërsëg waaye Dieye bëgg a dégg Dieye fi nga fekk tawaatin ak fi nga ànd ak moom ba mu acte fii loolu ñun ay combat wu tawaatin yëpp xam nañ ne ci yow lay jàpp pour mën a am tawaatin ba muy takk ngem ba léegi damaa ànd ak moom damaa fësul woon daa am nu mu doon demee galaaf pour dugg amaa Baldé daan ko ci bi mu may woo di ma tàggu pour dugg ci galaaf bi maa ngi toll ci rond point euh, ci kaw pont bi fee ma ne ko jëlal combat mu jël ko bi waaye dafa fekk ne di may def ci làmb yi melu ma ko woon ci moom noonu ñëw ci bopp bi di ko conseiller jegeñ ko gën a waxtaan ak moom bi mu tolloo ci benn situation dama futteku di def la ma daan def sax ngoon ma taal sama oto def fi mu war a nekk yóbbu ko fi ma ko war a yóbbu mu toog entraîner làmb entraînement ci nekk ah? bu soobee yàlla ak yonent bi li ñu war a pare ci làmb ji ak lépp lu ñu bëgg ci làmb ji pour sénégalais yi kontaan ak lépp lu ñu daan def ci làmb loolu nga bëgg a dégg dañ koy yokk duñ ko wàññi. mais daal jàpp nga ne daal nawtal ba du am. déggu ma. nawtal ba amoon ci buntu ba gars yi. dugg di daal dépassé nañ ay naaw dépassé nañ ay nawtal dépassé nañ ay. non non yaa ko souligné sànq sànq yaa ma ko wax. yaa dama am na lu xewoon ca làmb ja. waaw mooy gars yi di dugg di daal bitel yi daal di tuuru. waaw. mais kan moo tere indi gars yi biteel yi ak euh, ak euh, seen xëddeen yooyu ñu indi affaire xëddeen yi diggante ñaari ron yi. waaw xëddeen ah, kan moo leen ko tere indi ñaq yi ak yo ak borom kagul beeg keneen rek yooyu yëpp na ñëw ci làmb yi yooyu yëpp na bàyyi mu ñëw ci làmb yi. pourtant borom kagul baa ngi nii ci làmb bi dina jàkkaarloo yow dina na ñëw na ñëw na ñëw moom lañ gën a soxla na ñëw. kooku sama na ñëw na ñëw. borom kagul bi na ñëw pël yi takk nañu ñew ñëpp nañ ñew mais kan nga bëgg gis yow kan nga kan ban Balla gay nga bëgg dajel ban Balla gay nga bëgg mu ñew le le jàkkaarloo automatique Balla gay bu mu bëgg dajel moy Balla gay bi nga xamne dem na para para ba jek mom ak ay mbokam defaru ba jek arbitre ko para nga mëna paré na ñu laaj tafé ci paré na mëna paré na bobu boobu bëgg dajel wala du nonu borom kagul baa ngi noonu dina tàllal loxo ah borom toogul baa ngi noonu dina tàllal loxo. waaw na indi na baal la indiwaale bi. ah noonu boobu boobu kii daf dina baax. wuyu ma na indiwaale bi bu indee bi xam nga la Tapha di indi. waaw. ban la Tapha di indi. ah. dox daje. man daal xam naa ne man daal xam naa ne combat du yomb. xam nga du yomb xam nga combat bi ñun nan lañ koy tuddee bu ñuy ñëw ban bàkku la ñuy bàkku ma déggal la ko fii gars yi xamaguñ ko. mooy ban dox daje lu ne nga ci biir dox daje lu ne ci biir dox daje loolu la tabaat di indi ci làmb. ma laaj la leen wayu séeréer la liggéey balaa ñoo tàggatoo ma laaj la leen ah? ma laaj la leen balaa ñoo tàggatoo. waxal. Balla Gaye ku mu mës a bëri dox na ci sa kaw. mais lo mais mais Balla Gaye mooy daal ko ndaanaan la jàmbaar la looloo ko war gaynde la. mu bëreel daa war a dox ci kawam. bu doxee li ma gëm ci kaw Taphatine bu doxee ci kaw Taphatine. bu doxee ci kaw Taphatine. waaw waaw ah, bi mu dox ci kawam ñu dox daje. asalaamaaleykum wa rahmatulah. <laughs> jërëjëf jërëjëf. Ah,